online waaw salaam salaam salaam salaam salaam mbokku sénégalais yi juma mubarak ramadan mubarak maa ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi di ko ñaanal kilifa diina yeeg yu aada yi yal na yàlla yokk seen fan te bu ñuy fàtte duñu ñaanal di wax GSM juma mubarak noonu laa koy waxee les défenseurs de président Macky Sall waaw salut gars yi aha noonu laa koy waxee sama mag ji Alimatu Jaawara bëgg sa réew juma mubarak ak ramadan mubarak maa ngi baalu ñëpp àq di leen baalu àq di ñaanal président Macky Sall di ko wax yal na yen wi oyof Sall ngaar yi kontaan ci yow rek yal na la yàlla bàyyi xel mi musal la ci bii ak bii ak man waaw kay sama rakk ji yal nañ yàlla musal ci cat yal nañu yàlla musal ci noonu privé ah réew mi nag nii rekk la mel ni mu ne dégg nii rekk la ni dégg waa dañ ko fee fekk ñëw nag ci sonko moo ko munku ni ko sonko kenn xeexut sonko kenn génnut na woon fa woon dangay wax rekk <laughs> quinze personnes de dee may jaale seen yaay yi di xam njureel ni mu mel ak naqar Sonko kenn génnul benn bëkk néeg defu la lenn xam nga lan nga def jaaxle réew mi ku ko yëngal yëngu de Sonko réew mi ku koy jéema yëngal yëngu Sonko yow yaay kan ci réew mi kii kii sonk yow ma wax ko anglais who is who Sonko negro yow yaa génnaat ñu defee ni ci wéeru koor bi dangay baalu àq nit ñi ak li nga fi def combat mortel nga génnaat nañ ma jugé sonk koo yab ci réew mi ak koo bëgg a yab Sonko danga bëgg jigéen ñi génn caravasé la dañu am ay jekk njatu de te dañu pare pour yéen de yaayu aji saari dañu pare dañuy dóore léegi waaw ndax yëf yi gën a gaaw ñuy dóore ñaf ngeen def bon def seen équipe bu bon Ahmed Aïdara Macky sàll li mu def fii démb cuune mënu ko Ahmed Aïdara Macky Sall li mu def fii démb cuune dëkka man he's the best president of Africa negro Ahmed Aïdara ko doon ba ñuy ëppante tu ñuy ëppante ñépp dañuy ree yow du nii ngay def nii rek ngay ree nii la la yàlla def nii nga arke bon soxor buggaan ngay dani xamul li nga koy fexeel sa télé yow yi ngay pare ak say rajo say siit yow Ahmed Aidara buggaan ngay dani dafa jëli dara muy xuutar xuutar yi moom it mel ni dàmbooj ñun ñu def ñaadam ñaadam ni faax seen kaw koo leen doon abi abi xaaral abi damay xuloo may ma rek sama rakk ji sama seex bi sama seex bi may ma rek yow ak Dame Mbodj Ahmed Aidara alias doomu dangeen mi bi dafa am ku ñaaw ma waxaat la ko yonent bi dafa am lii yonent bi lu mu meññ nga teen mu feeñ ci sa karaw wala sa yaram wax get the fuck up dama woor get the hell out of here yaa bon Ahmed Aidara nga ni tey Bougane Gueye day génn dox naa xuutar xuutari Macky Sall mooy président bi la ma man manu leen ko wër di ruube réew mi bugaan moom xol bi ay taab bugaan ana moom yi la ko def nii nga def di biiral ok yow bugaan gay xol bu taab tekki woo dara ci réew mi kala kala kala feesaloon stade Amadou bari jigéen la danga ko toroxal leb na def na lu ne fa yooyu kuul ba léegi ñi nga ameel xaalis doon liggéey ci yow xam nga li ma la wax fay leen doog a génn def sa yi ngay def bugaan gay dani xol bu taab danga mën a dox ci tànku Macky Sall yow président république ayo pour la suusata gàcce nee nañu pour la ñaamata gàcce he's the best président yow danga dund yow yow yow bugaan gay dani génnal génnal xuutar xuutari ba sa ba sa yàpp saf ñeex li ngeen di bon soxor iñaan sénégalais yi nag xam nañu léegi was going on xale yu góor yi xam nañu what's going on sonk dafa bëgg doomu jàmbur yi deyaat quinze personnes encore mu violé waat beneen yeneen jigéen suñuy moroom seen dooma dee sonk nga ni doo bàyyi Sonko nga ni doo génn baalu ak sénégalais yi naqaral gi ñu naqaral taal bagage jàmbur yi Sonko nga ni doo bàyyi dangay bàyyi dañay la dóor ba nga xam ni dóor nañ la Sonko jigéen ñi dinañ la caravasé ay fiil ba nga yëg ko yaa ko àndal nag daan mbóot jikko mbóotam bisexuel aji sar dinga ko yàbbin may ndeyam ak ak bëri ndey sax nag mais ndey ju pànk jaa ngi ndey ji ndey manifesté baa ngi ki taxaw place de l'Obélisque ngi daam mbóot sa jikko mboot gi nga yor ñàkk jom di jàngale di fecc yàlla boo jàngal sama doom dàmbooj lii la jigéen ñi yàq ak góor ñu baax ñi ñu àndal dàmbooj dangay bàyyi aji ndànk mbaa ñu fete la sunuy fiil lañu yor nag jóg dañuy dóor ana Pastef boroom tànk ginnaaw yi doo leen dem doo leen dem xoolal li Sonko defaat eh, bëkk néeg yi ñooy xañe benn bëkk néeg xañu la yaa xañ sa bopp lépp Sénégal Sonko sonko saa yoo génnee dama la daan wax ni jikko kaña nga yor foo génnee ni ña daw topp la bëpp bëpp bëpp saa yoo génnee wax musiba sonko saa yoo génnee wax musiba sonko mayal ni ñi jàmm te wax demal sa bopp nag yow dugal nag oto nag sonko nag nga dem ba ba ba tribunal nag ni ana ku ma doon seet maa ngi woo leen aji duma fi jóge dangay kàcc xam nga li nga def violeur nga sonko monko munk oyof gagnon ruube wure wuruj tane loolu ngay def yow sonko réew mi jëli nañ la ba yëf yi doog a commencé taxi bu ma dugg nga ni noo dañ ko tuumaal léegi taxi yëpp nee nañu xam nañ ni waa ji def na lii mu lii xale bi wax sonko ba nga génnee danga waroon ni ana aji saar ràccu def seen xuutar xuutar goo ngay wër bëgg ku la baal di seeti Ahmed xalifa Niass te taxaw saaga ko barki démb nee na ci télé bi ànd nga fay nit ñëwaat nga fa yow kenn xaaju guddi sonko loo fa wuti woon encore ma waxaat ko sonko xam nga li nga def arrêtel arrêtel sonko yàgg say ñoñ ay Aidara moom ci tànk buggaan la ne tele lay bëgg ubbi <laughs> Ahmed wax nañ ma ko tele ak rajo di ruubee buggaan pour mu toog sa xol bu bon li ngay arke yonent bi dafa am mel ni yow ay reenaan ni doo musa reeni kan génnee ñaari daan doo ko def Macky Sall da lay gën Ahmed Aïdara ba ba ngay dee kumba timboo sunu yaay jooju lu mu jur dala gën barki yonent bi te li may wax Sénégal gépp xam nañ ko Ahmed Aïdara réew mi jéppi nañ la de yow ak euh, dàmboot ak Bougane Gueye Dany Sonko yéen ñii Sénégal ñoo leen jéppi waaye xamu leen seen bopp ngeen dal réew mi wuure yoru ko wuur yoru ko tani yoru ko mani pettaaw laay wax mu leer yoru ko ngeen di ruube ay Aidara yaa bon sa tës tay ñëpp ŋàññi nañ la yaa iñaan ay eh, xam nañu opposition waaye du iñaan Ahmed Aidara yaa iñaan waxal sa tur bi sénégalais yëpp Amadou Njoon laa tudd maa ngi maa ngi juddoo diggante Sokone gam bi wax kay waxal loolu sénégalais yi dañoo nekkoon ci kër benn sërif ay Ahmed Aïdara li ñu xam bari na rek leel bëgg noo yegg fépp yaa bon yaa bañ réew mi ah nga bëgg ubbi tele danga am sëriñ nee naa la bokk nañu cumbukaay yow bokk nañu cumbukaay laa wax Ahmed Aïdara alias doomu dangin ay dara changer sa tur bi wax sénégalais yi ne leen Amadou Ndione laa tudd ñu gëm la benn bi nga ruube réew maa ngoog signalé droite jàdd gauche Ahmed Aïdara yaa bon ci weeru koor lan ne réew mi nga ngay ruube Ahmed Aïdara di ko kafe di ree mani suul aji saar du ko teree feeñ dàmbooj suul aji saar du ko teree feeñ te ngeen di sonn rek waxu pétrole teg na leen aji saar moo xew ak sonko violeur oyof gaño dangeen koy bañ doo leen coco dàmbooj xale yaa ngi sa kaw de di la ko sa bañ bu baax boo gisoon fii li ñu raw nag nga xam jigéen ñi ña nga raw ay fiil dan la koy bàcc booy dox bàyyi sa xel ci sa bopp wala nga ànd ak garde ko te dañuy dal seen kaw dàmbooj dañu pare pour ñaf la ay Aidara nañ ko ñaf moom dafa bëgg ruube réew mi di saaga yaayu aji saar dégg naa yaayam sa sëyuloon ak baayam yow sa ndey dafa sëyoon nag sa baay yow Ahmed Aidara noo juddoo Ahmed Aidara fase woowu fi sa jabar boo àndal xoslu muy liggéey fii ci RFM fasewoo ko wor ko yow mosoo bëgg jigéen Amadou njoon te doo bëgg jigéen ba àddina di tukki nga def tànk yu rënk mel ni ko toog ci poto sàmbur bëñ yu ëppante tuñ yu ëppante nga ñaaw yàlla yàlla dafay yónni ko ñaaw Ahmed Aidara daam buy tilim bëñ yu tilim Ahmed noonu la ay bëñam tilimee moom it gusu leen ko du ko wane de fii rek yaa bon buggaan na génn <laughs> na génn xuutar xuutari président toogoon fii démb de xam ngeen ñaata aawala toog di wax ak jeunesse su réew mi buggaan lu tax génnoo woon avant président di génn buggaan buggaan di nga fay tax yëpp danga bëggoon ku la baal buggaan amul biiral kat bi yow buggaan gay dani léegi kii def nii moom nga def violé ana anam ana moomi doo dara tekkiwu leen dara président Macky Sall moom la fi yàlla teg da ngeen di dee moo fi ne moom lanu bëgg moo baax ci réew mi xale yi gëm nañ ko li ma gis fii démb xale yee gëm président Macky Sall te dina doxal xale yi di ngeen bëgg de du liggéey ngeen bëgg na ca dal da a bëgg a bàyyi lépp na ca dal ca liggéey ya ñi ngi pare ngeen Ahmed Aidara alias doomi James Brown noonu nga mel ni James Brown dama xool James Brown da ngeen a ba ci baat bismillah doo dara ñëpp la jëppi réew mi yëpp jëppi nañ la safaru taxi jëppi la jëppi xuutar xuutar yi dàmbuj moom lañu ñu wone barki démb muy jàngal xale yi di fecc dàmbuj mbóot nga mbóot jikko mbóot nga yor da nga bëgg Sonko falu fal la du fi falu du nu yàlla nag mais sonko ñun ñooy voté du fi falu réew mi nee nañu sonko du fi falu sénégalais yi na maa leen di ñaana di di leen baalu ak di leen wax ni mani ku ne président Macky Sall duut baaraam ma gàjji la matt la toroxal la lii rek laa fi nekkee nag yàlla na nu yàlla defal jàmm yaay aji sar jaa ngi toog aka bari nday <laughs> aka bari nijaay aka bari bàjjan Khadim Gueye sama nijaay bëggkatu président Macky sàll boobu nga xam ne du sonn du tàyyi yu Adji Sarr dang yow <laughs> kenn du yow sama nijaay loo def moo gën loo deful na ca dal sama nijaay na ca dal ñaf sénégalais maa ngi leen di baaluwaat ak ci weeru koor bi te di leen bal ak di ñaan yàlla mi nga xamante ne ni mooy maye jàmm te may na ko senegal yàlla na koy yàlla yokk réew mi ku ko bëgg yàq yàq ku bëgg yàq réew mi yàlla yàq la alak la mooy sonko monko munko oyof gaño bugaan gay dani xol bu taab Amadou Njoon alias doomu dàngin nuroowaale James Brown Mansour netatu raw xolu non dafa soxor bu ñuul Mansour Jóob Jóob rek lay mën a sant Pape Ale coxolaan fen ba àddina bépp àndandoor na léegi nañ leen bàyyi Pape Alé muy wax rek ñëpp gëm ñëpp ñëpp ñëpp nee nañ leen ko bàyyi yaa man a fen mën a kàcc teg ci ñii bu leen sénégalais bàyyiwul xel ñooy taar réew mi su tunkara moom dégg naa jabar ja da doon wàccee kaamil ma ni leen yéen noppaliku leen awa ndaw miin na jëkkëram di dugg kaso bi mooy juróomi yoon ci kaso Amérique yi awa ndaw miin na ko xam na ko ndax dafay sëy ak sàcc te kuy sëy ak sàcc sàcc nga awa ndaw sàcc la ay famem xam nañ ni sàcc la moom awa ndaw ndax jëkkëram sàcc la mu ànd ak moom yii miin na ko booy looy wàccee kaamil te yàlla xam lépp awa ndaw bul ma taxa wax danga mel ni ruuxu wàccee kaamil ci kan tunkara sa jëkkër ba muy toog di saaga mi di tàllu réew mi awa ndaw yow yëgoo ko woon kacapan bi waaye bu leen tax a mer ci weeru koor bi waaye awa ndaw xam nga lépp oto bu rafet bu ne sa jëkkër jox na la ko nga dawal te da ko sàcc xam nga lépp awa sàcc nga lañuy dajale du mat sa jëkkër état Amérique ñoo ko soxla woon mi ngi noonu activiste yi luñ nat dégg naa mille six cent euros yéen di caaxaan rek nee naa leen seen loxo jotul américain yi ñoom lay neex ñu indi tunkara mbaa mu neex leen ñu ba ko fa mais yéen seen loxo jotu ko awa ndaw naa fekk nga seytaane nga nga mel ni eh, dërukaay sa ween yu platé wàccee kaamil nga tàmm ko yow Awa Ndaw nga tàmm Tunkara nekk kaso bii mooy cinq fois cinq fois dañ ko rapatrié woon mu dellu si waa 2002 ki ko indi xam naa ko duma ko tudd yaa bon Awa Ndaw yaa bon bugguma la yool yow kenn naa Awa Ndaw regleel sa bopp ngay jaay kacapaa noonu yaag maire yi nekk foofu di taxawaaloo ay magi maam yi daaraak yu bon yooyu lañuy dem kuy saaga réew mi magu daara yaayu daara meer aram aaj bu makki sàll ñëwee mun a Macky Sall la bu Sonko ñëwee mun a Sonko la meer aram aaj kan nga nag yow tamit ak tatu bi xam nga man ñooñu tamit dañ may jaaxal meer yooyu te meer aram aaj kat sama xarit la dama ko sopp waaye fa ma ko gis neexu ma ak yaayu daara loolu du seen cër yéen réew mi dangeen ko war a defar gis sax ñuy ñuy saaga ngeen dem ni tunkara lii ngay wax du yoon mais da a ragal damay dal seen kaw de salut